leen di jaale Bamba borom kamaali bismillaahi maa ngi leen di jaale jawriñu Bamba borom kamaali moo fi desoon ci doomi Seexu Bamba bur yàlla yóbbu ko mu fekki Bamba moo fi newoon xalifatul ilaahi Sëriñ Saaliw Mbakke moo doon xaadimu rasuulillaahi mooy salaat tariixatul muriidi ba ñépp xam muriidi ak mariidi moo dalaloon xel yi ba ñépp jaaxle waaye de tey xol yépp a cey Mbàkke Balla yaa matal bi xutbu zamaan bi yaa yonen bi liggéey bi mat na xol yépp bég na sa dem gi tax na xol yépp dee na cey yàlla laa ilaha illa laahu muhammadun arsalawal ilaahu salaale ilaahu bi fi ali wa sabil kiraami cey yàlla jël na mbàkke balla ay saak borom gotëk mbuur dem na neeg solom saak te yàlla jël na bàyyi soxna moomi naqaru tiis wi am ci réew mi ku baax ka dem na ni ba génn àdduna wallaayi de metti ci àdduna way fu nu jëm ay fu nu jëm xawma ko man tey fu nu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf tiim na bàyyi soxna waalo mbaake way àdduna tukki ku yebu jekki di wax jërëjëf Serigne Saliou euh, tey ñoo ngi fii ci tapis vert di def anniversaire u Serigne Saliou Amadou Gueye Fifty di ko def nga xam ni bépp xeetu teraanga bi nga xam ni Serigne Saliou daan na ko def boo ñëwee fii tey ci anniversaire bi daa ko fekk. waaye bala may wax dara damay jox ki nga xam ni mooy sama nijaay Banda euh, jóge Ndar ndax bis bi mu ubbi may doog dem si président communicateur de Saint-Louis El Hadj Mokh Meng Mbaax mi sama nijaay. sëriñ Saliou dalal nga xelee seral nga xol yi naatal na kër yi yaay Seexi Bamba maami sëriñ Mbàkke murit sëriñ Saliou bismillah ma way sëriñ Saliou ma am ma ngërëm yaa yiw te am ngor te baaxoo naa la may ma ngërëm sëriñ saaliwu yaa maandu sëriñ saaliwu yaa yaatu yaakaar naa la ngir sa sëriñ saaliwu sunu sëriñ way leen ko sàkku ngërëm di jaare sunu kilifa yu baax yi ñu fi nekkal ci jataay bi muy sëriñ Basiiru Mbakke moom sëriñ Moodu Maxtaar mi ngi ci jataay bi ñu ngi koy jaare bu baax di ko jox wàccuwaayam ak ñi mu àndal ñëpp di jaare sunu Serigne Serigne Mbacke Mouride mi nga xam ne surtout sëñ Tuubaa la waaye dafa jaay njuleel géeg lépp jëndee ko ak taalibe bi ci xam-xam bi ci ci bëgg gi Serigne tubaa moom lañ ko koy seeral ñun dong yëpp di sant yàlla ndax ci bis bi bis bi bis bu am tawféex la mooy bis boo xam ne anniversaire Serigne Saliou la le 28 ci mi nga xam ne ci la wàcce woon liggéey ñibbi ca boromam ca waajuram wu tedd wu Serigne Touba dem àjjana. ab taalibeem bu mag di ko def muy Ahmadou Gueye fifty ndax ba mu xëyee rek lam njëkkee mooy alxuraanu karim te kuy liggéey Sëñ Tuubaa ci alxuraan nga koy jaare bernde yi ba ñu xëyee ba léegi tàmbali ni ci suba lépp lépp lépp dara manqué wut jànkatu xasaayit yi ñi ngi ñëw waaye li ñu ko mën a seere daal mooy xam nañ ne am na taw tawfeex sëriñ Saliou ndax bi ma déggee wax ji caatum Serigne Saliou ñëw na fii te xamu ñëw na fii ci barab bi te xamu ko kon bu loolu amee tey jii di anniversaire Serigne Saliou ñun fekk nañ ko ndar ndax murid yi bu ñu jëmee ndar rek ñëpp seen xel day dem ci moom moom dong doon na foofu taalibe bi waaye moom dong dëkku ndar waaye xam nga lu waral loolu mooy jikkoom ak yaram ki teggin sëñ Souleymane baay Fall wax na ko léegi ak tabeem ak bëgg gi sëriñ tubaa te ñun am amuñu lu du Serigne Touba maam Cheikh Fall dana woon nañ booleeg sëñ Bamba te bañ bokk moom bokk amu njëriñ ñuy sant Mbàkke ñooy suñu sëriñ ñun seen i taalibe rek ñuy doon waaye mu am tawféex ci sëñ Tuubaa ndax ndar ku fa dem gis la muy def yéen ñu dëkk ndar xam ngeen ne moyen bu baree baree bare lay génne def ko ci taalibe sëñ Tuubaa yi jël na hôtel yi defari bernde ñëpp di xewlu te dara du manqué kon nag bu ñëwee tey fii muy liggéey nii di fi sant Serigne Saliou bañ xëyee ba léegi dara manqué wut ak ñi muy liggéeyandoo yëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm. tey Serigne Saliou kookoo ne jox ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Bamba daan def ci mag ñi borom cant gi firndeel na ko amul 40 ans Amadou Gueye firti ci ndaw ndaw yi Serigne Saliou la bokk waaye ndar kuy dem ñaar rakk yi sëñ Mbacke Mouride dana bëgg a xam Amadou Gueye firti ñaari hôtel lay fay Mouride yi di fanaan ku ci ne caabi la la jox maa ngi moor mii caabi la nu jox ci maa ci ñaar rakk yi jàll ak noonu ñu bare dalal sëriñ si ban jeex mu dalal mbokki taalibe yi dalal jànkati xaside yi lii muy servir ci tapis lay lay servir ñaar rakkay ndar dama ko ne am ba am jeex am jooyal ko say mbokk gën ku du teg say mbokk am mbokki jàmbur moo ni ndar laa am ñooy samay mbokk falaa fekk baax kon lu ma fa def war na ma dañ lay servir comme nii jus canette kirène 4 4 milliards Serigne Saliou ngoog tubaab bi dani kanu mu ni ko mu ni ko soppi naa ko kanet mu ni téléphone mu ni ko xasida yi ñu ni maaj mu ni maajaal kenn jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Sëriñ Tuubaa daan def ci mag ñi kon borom biis bii firndeel na ko ndaw la lu bari jom ndaw la lu yaru nee naa ko li ma neex ci yow mooy dangaa yëg nit dangaa yaru waaw mooy yaru yaroo yaroo coiffé lépp mooy moo coiffé dal moo coiffé woy moo coiffé ràññee moo coiffé tabe xanaa xamoo ni ab tab bu tàppitul lu mu xëccoo ki moroomam moo koy jël te dal na ko tab bu tàppitul du joxe ba ni hu Amadou looloo ko dal ndaw la waaye day tab bu tàppitul yaru lool yëg nit lool sa waay du ñeewaayu keneen sawaay du xat ci jëm feneen de su gëm di gëm keneen sëriñ saaliw sa diine doy na xarnu bi sawaay du ñee waayu keneen sëriñ xat ci jëm feneen de su gëm di gëm keneen sa diine doy na xarnu bi na ñëpp def ni ñu màggal sëriñ saaliw gàmmu gi moo ko moom sëriñ saaliw réew mi nag tuuti yéen ñi mar ba doon rooti ndox mu neex mi may sotti teen bi mooy sëriñ saaliw sëriñ saaliw mbàkke wayu ko war na kuy taalif sëriñ saaliw mbàkke jooyu ko war na kuy haarif yow mi jëm feneen yaa adof xamtu leen sëriñ saaliw yërmandey sëriñ saaliw yaa gën ci lu mu ngi laa gërëm di la sant di yàlla sa borom borom sëñ saaliw bi loo ci yéetu yàlla yow nag yow nag bila la sëñ Moxsin Malick ñaanalee rek la xel dal sëñ Moxsin sëñ Malick a ko jur sëñ Malick soxna Yannidu Ba moo ko jur Hanidu Ba moo ni woon sëñ ma sëñ Moxsin bindal soo bëggee ak njureel bindal kaamil yóbbu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul soxna Hamidou Ba moo ni woon Serigne Moxsin mu mag ma soo bëggee ma baal la ak njureel borom jamono bindal ma téere kaamil ci sa loxo yóbbul ma ko defu ko ba soxna si wàññeeku génn àddina mu toog benn guddi benn mag ñëw gént ni ko eh sa waajur bu jigéen am na lu mu la santoon defal loolu mu bind téere ba kaamil ba yóbbu ko njaareem jox sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa ni ko danaa fexe ba ku jàng alxuraan koo jàngal alxuraan koo mënti doon fu mu jànge danañu xam ni kii ci askanu kër Moxsin ñoo ko jàngal alxuraan danaa def ci alxuraan loolu loolu daara jooju nga jaar ba sëriñ Moxsin moomu ñaanal la sama xarit Amadou Gueye Fifty bëggal ko boppam maag Fifty ñu waxtaan ci moom lu ngeen gis ci jotaay rek am solo cheikh Mouhamadul Fadal doomi cheikh Ahmadou Bamba. ajjuma ji nga xam ne ci la sëñ Bachirum sëñ Touba mujj dugg ci jumaay Touba muy bëccëgub ajjuma ba sëriñ Fallou di ba sëñ Bachir ne asalaamaaleykum sëñ Fallou dafa dagg xutba ba gestu cheikh Ahmadou Bachir te que julli googu la mujj julli bëccëg ba jumaay Touba. keroog la fekk mbur may xutba alaaji Fallou ku sopp Bamba mu nuyoo mu dagg xutba ba ngir war warmaal ko mu toog mu baa mu wooyee yéem naa ko. fii cheikh Ahmadou Bachir dugg see rek. dañoo dagg ak julli ni mu toll waaye wala xaj karam naa bani aadama Souleymane sànq danga ma tàngaloo ci yu bëri li ma tàngaloo da nga ne man murit laa man menn xel laa muy Sëñ Tuba Cheikh Ahmadul Bachir Ahmadul Xadim sëñ Xadim soxna Ndey Dere bi sama xarit la ci ñaari fànn du Ousmane waaye sii dem sëñ Abdou mi doomi Ndey Ousmane ma sekk di sëñ Abdou Bara jur ko Cheikh Mamadou Lamine ma xam ko bu yàgg këram fii ci boulangerie son bi maag Ousmane ak Jili Mbayam suñu Cheikh Asfa yàgg nañu toog ci buntu kër gi ca garab yi sa borom kër bokk ci ñi fondef APR bu la première dame doomam buñ la ko tuddee yàgg mag Sall benn ngeen amadu bu Guèye mii toog ak Amadou Sall mii taw Macky Sall tous les nuits ñooy nekk ba bërset bu nëkkul fii ña nga kër Fifty màggal gi jox na ma yére yoo xam ne bi ma ko jox maag Fifty la ko jox kenn ko daa ubbi maal otam ne kaay leen tànn ci président de la république te yëm ñu jox kat du tisay tisay quatre cent mille la dix mètres bu di jar ñaari rek benn bu ne téeméeri junni la jar yëkkatiwaat xewal gën a ñëw leen ko defal ma ko ngir jëmmi kii man kii sama xarit xarit du caagee ne mbooloo leen di boole da di nekk ci bëri li ma leen di sant nag ñi wóor jataay bépp benn baat rek laay wax du sori xam nga lu ma wax Souleymane kii li muy jëf sëñ xaarim junj na ko sëñ Mortal Masalik junj na ko li muy jëf sañ Saliou moo waxal boppam di doomi Cheikh Ahmadou Bamba kenn du ko fenal ne kenn du liggéeyal Serigne Touba ba ma la yërëm ndax sama bët dafa tege ci payu kuy liggéeyal Serigne Touba dégg nga li Serigne Saliou wax kenn du liggéeyal Serigne Touba ma la yërëm naan li ngay liggéey mett naag di la ci jox dara di la ñeewante ndax boo la ëllëg Serigne Touba di fay ni muy bëree sama bët dafa tege ci pay gi yooyu nag moo waral moom mii bu jógee ndar jóg Sénégal jóg yàlla taw féexali ko tam mu dajeeg caatum sëñ Saliou muy Cheikh Mourtala moom Serigne Saliou jébbal ko boppam sëñ Mourtala am sëñ Saliou boo ne ko jàkk sa day daw ndax day doomi ngërëm koo xam ne soxna mati mii wajur sëñ Moussa Saliou moom la nekkal ñu indi ko ci kër ga mu doon ci ndaw ñi soxna mati yore dem ba ci biir kër ga soxna mati tànnalaat ko sëñ Saliou sëñ Saliou jëlaat ko ci biir kër kooku mooy soxna mati mi nga xam ne mooy soxna sëñ Moussa Saliou yor soxna Anta Jaxate mu jur sëñ Mourtalaam sëñ Saliou boobu man maa ngi ci kër sëñ Saliou bokk ci gone yi man bokk naa ci ñi daan bës sëñ Saliou ba bët set ndakaaru gii nag yi fi daje dafa bari te nuróo te bokkut ñun ñii ñuy askanali sëñ Tuubaa ñu bokk sant Mbàkke bokk sëñ bi demuñ na dañuy bokk sëñ bi sëñ bee ñu tànn ni xuree sa kaxaasin teddoon di giir gu yonent bi génn sëñ Tuubaa moo ñëw ci ahlu maaram ne askan wi ma bokk dama fee fekk ñaar ma def ci ñett ñëpp na tekk sëñ Tuubaa dama fekk ñuy ay gor yu julli di jàng alxuraan di askan wu néew doole ma def ci ñoom barke lii xaadimu rasul moo ko wax léegi nag képp ku sant Mbàkke te bokk ci sëñ bi nekkul da ngay yor saw sant rek ne mbokkam sëñ bi laa ñun dañu judd ñu jox ñu sëñ Saaliw ñu dem tër bi am ngërëm jàng alxuraan doolu ñëw ci Ndakaaru li ma mën a wax nag mooy jataay bi ku fi mën a teew ku ne yërmande Serigne Saliou lañ lay ñaanal Médoune li tax ma ne yërmande Serigne Saliou bis bii rek sunu jigéen bii ci point di moom it Kebe soxna sëñ Moustapha Saliou la woon Ndiouga Kebe jur ko li tax ma tudd ko dama bis bi képp soxna si ci Mermoz képp di moominatu Kebe di soxna sëñ Moustapha moom sëñ Saliou yoroon ko Ndiouga Kebe jur ko ma ngi def lu mën lu mënul kon yow mi nga xam ne ci moom nga nekk boo fi teewee bokk ci fifty ngeen bokk Sëñ Saaliw Sëñ Saaliw dafa waxoon ne ñaar duma ko fekk du ma fekk du fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal man kuddul Saaliw kuddul yàlla mu bind jaam ñi ëpp ma yërmaande ci jaam ñi kii diir bu néew dana dimbalee de waaye dana wut ñuy dimbalee mais duñ jëlal li ma lay wax dama ne toog fi mu mi ngi dimbalee mais buñ demee diir bu néew ci kanam dana samp ñuy dimbalee xam nga wéeruwaay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 ci saw jant mbaa feneen yàlla saaliw di seen jant bi tiim waa xarnu bi dem ba doomi sëñ tubaa jeex as saaliw képp tiim xarnu bi buñ bindoon leetar ci biti ñu ne doomi sëñ tubaa ñu saaliw lañ ko yót kon nag Amadou man sama xarit nga dama fier ak yow di la gërëmal sunu xaritu bopp Amadou Sall bu président mag Sall xam ni mu defanteeg yow dalaa téye ci jullit téye ci ngor téye la ci nga di ko defaral ak di ko yaatalal ba pare di dajale nit ñi toujours ñu ñëw di waxtaan ci diine l'islam ak ak bokk ak lu rafet moo tax mu jàpp la loolu tax nga jàpp ko maa ngi koy seere di ko seeral ñëpp bañ a guddal ndax sëñ Saliou Samb jataa ak sang yële ci ginnaaw waa alxuraan ji waa kër sama xarit yi ñëpp man damaa am kerse wuruma tudd kenn dama ne man maay murid yi yoon wépp laa boole képp ku di ab julli rek man sëñ Tuubaa tax mu bëgg la kon Cheikh Bass Makhtar jataay baa ngoog waaw